dëgg la di wéy Sénégal ñëpp ne ndaw naa ko de la dame de fer jigéen jigéen ci kër ee oo ah, jigéen ñaa ngi wéy naa Mamadou Talla jabaar ja ma ngay jàppale jigéen ñi sama bëgg loolu bi weer bi la sa ministère baa ngay doxal formation professionnelle formé na jigéen ñi jàmbaar yi ñee nga ca tool yay bàyyi ñee ngay def transformation eh, eh, yi man de kontaan naa waaw dana jàkk jàkkaarloog yow ngay nelaw sa taw lal yow jigéen ñi bari jom eh, eh, jigéen ñi bari gom ña koy si naa la fi yoon li lu ndaje bi mooy euh, monitrice yi nga xamante ne ñooy euh, demandé seen place ci émergence man dama yàq ne dama jàpp na ñoom bi ñu dalee émerger loo jigéen dadul tey. man miy wax ak yow mën naa doon seede ndax tey témoignage rek lay def si ñoom ñoo ma formé ci seen loxo laa jaar man ci groupement de promotion féminine laa jóge ñi di ma tàggat di ma gëmloo sama bopp di ma formé ci domaine yu nekk nag éducation bien-être familial euh, ci léppi développement daal santé et tout dugal nañ seen loxo ci sama jëmm ji ba tax muy refléter lu néewus li war a représenter jigéen ñi ci man mooy lib naa leen sànq mënuma leen a limaat léegi waaye képp koo xamante ne jaar na cees nekk formatrice rek man jaar naa ci loxoom kon bu ñu defee journée bii tey man damay sawar ñëw teewal fi mairie cees pour rek cité wu en exemple man ci li nga xamante ne ñoom mën nañ ko jëriñ askan wi rawatina ñun jigéen ñi donc loolu mooy soleil tey jii kon ñoom bu ñuy def seen assemble générale annuelle di teral seeni nawle mais aussi di mettre en ñu loo xamante ne moom lañuy ñu liggéey di def seen panel yi dañoo delloo buum ca booy booy ba rek mais ñoom mën naa résumer en un mot ne ñoom nit la ñuy defar. li ci gën wax accompagnement collectivités locales yi. Mhm. boobu ba que jàpp nga ni collectivités yi am loolu ñuy defe naa ne loolu nag man mën naa répondre mën naa cee tontu parce que ci collectivité laa nekk te ci ñoom laa jóge baax na nag ñu gën a xamaat ñoom seen liggéey lan la ci askan bi baax na ñu gën leen a jàppale waaye baax na ñoom ñu ubbil leen ay créneaux yoo xamante ne ci population bi ñoom même bu ñu retraité war na nañoo mën a topp doomu aadama yi ndax nag ñoom waruñu woon a mën a retraité sax parce que nit kuy def ci doomu aadama loo xamante ne day rafetaluk nekk ndi ko dëgëral loolu retraite waxta am ci ñoom te ñoom loolu mooy seen liggéey. samay recommandation mooy damay jël ku mosaan mii nga xamante ne. Euh, wax deug neex yalla ties ñepp xam nañ ko ci topato jigen mais ñepp xam nañ ko ci topato doomu adama ndax ñom bo gisé légui marraine bi li wax ne bi mu retraité lool lay def nga xam ne kon ñom sét loxo du génn ci dundinu doomu adama ke mom mu jégué monsieur le maire ñom ñi dëkk ties ñu ñëw togg ak maire wax ko li nga xamanteni ne lañu mënal askan wi maire accompagner len parce que lolu quand même ci bir Thiès moy fexe ba lépp loo xamante ne mën nañ ko andil doomu adama yi nekk Thiès mom mu mettre len dans de bonnes conditions encadrer len jox len les moyens de le faire kon loolu moom ñu ngi leen di demander ñoom au sortir de cette rencontre que ñoom ci seen recommandations ñu boole ci dem vers les autorités xëy na ñu bare aussi dañoo réere mir li nga xamante ne ñoom noom moom la ñuy def kon xëy na bu ñu ko defee te ñoom soxlawuñu lu askan wi jëm kanam war nañ leen a mën a accompagner d'autant plus que structure yaa fi kon il suffit que maire yi dugal ci seen loxo pour que vraiment ñoom ñu mën a atteindre 21 mars de chaque année à travers le monde les professionnels célèbres célèbrent l'économie familiale et sociale cette année ici au Sénégal on a choisi la région de Thiès avec une cellule très dynamique qui, des pieds et des mains, a pu quand même réunir tout ce bon monde. Si on revient sur la célébration, c'est depuis le XXe siècle, avec la Fédération internationale de l'économie familiale, au Canada, en Finlande, en Hollande, ici au Sénégal, dans la sous-région. Parce que partout, il y a des professionnels de l'économie familiale et sociale économie familiale qui est une discipline, je peux dire, avec plusieurs branches, donc pluridisciplinaire même. Donc c'est une matière pluridisciplinaire. De la santé, oui. Lutter contre la féminisation de la pauvreté, mais surtout décliner les axes sur lesquels on peut s'appuyer pour jouer notre rôle dans l'atteinte des objectifs du plan Sénégal émergent mais aussi occuper la place qu'il nous faut dans l'exécution de ce plan aussi ambitieux. Cependant, quels que soient les axes, sur les trois, l'économie familiale a son rôle et sa place à jouer dans l'atteinte des objectifs. Toute une fierté de voir ces femmes encadrées, surtout par nos aînés, parce que c'est une discipline qui est épousée aussi bien maintenant par les hommes que par les femmes. Les professionnels ont encadré, accompagné les femmes en les mettant ensemble d'abord dans les organisations du groupement de promotion féminine, dans les associations féminines, dans les groupements d'intérêt économique. Ils les ont regroupés, ensuite les ont encadrés pour qu'ils deviennent aujourd'hui des leaders ce sont les femmes quand même qui témoignent, mais il y a des hommes qui sont passés entre les mains des professionnels de l'économie familiale. Parce que tout ce qui est association communautaire de base, ce sont les professionnels qui étaient là, dans les serres, dans le développement communautaire. Si c'est du côté des bénéficiaires, ou bien même des acteurs, actrices, si on a les compétences, si on les capacite, cela nécessite quand même des mesures d'accompagnement. Ça nécessite des infrastructures. Ça nécessite un accompagnement financier. Et si cela ne suit pas, ça pose problème et ça limite l'émergence. Quel que soit l'échelon où les populations se trouvent, elles doivent quand même bénéficier de l'apprentissage en langue nationale. Même nous qui avons fréquenté l'école française. Nous avons besoin de connaître, de pouvoir s'exprimer correctement dans nos langues. Parce que la compréhension est beaucoup plus facile, l'exécution encore plus. Donc que ce soit les enfants, que ce soit les femmes, les jeunes qui sont dans d'autres sphères, toutes ces populations ont besoin d'être capacitées en langue nationale. maam Kondé Sylla maa ngi sant di gërëm sama collègue yi ma def marraine journée bi et loolu dafa egg ci sama xol sànq bi may def sama discours nee naa leen émotion yi jàpp na ma ba mënumaa xam sax lan laay wax ndax nit ki bu àndeek yow di liggéey toog ba ngeen tànn ko ne ko yow lañu ñu def tudde la bis bi loolu moom mënuma xam lan la may def sax ci sama xol ndax daf ma dépassé et loolu maa ngi ciy sant yàlla ah, di sant aussi sama waajur yi nga xam ne niñ ma yare mooy nit bu xasee nekk ci àdduna gannaaw jaamu yàlla na liggéey loo xam ne da koy bokk ak ñi nga xam ne moom la bokkal fii ci suuf ah li ngeen ma laaj nag lu am importance la lu ma bëgg tontu. ndax langue nationale toujours dama naan suñ ko dugaloon ci suñu jàngale kon lu ci bare faju na la preuve année yaa ngi ma wax ne ma femmes yi def alphabétisation fonctionnelle loolu ci programme mu économie familiale bi ci lañ jëkk a jëkk a soutenir wu pour mën a faire passer message yu leen di jàngal ndax nit ki su fekkee day dégg mën na dégg fàtte mais bu demee ba nga xam ne jàngal nga ko ba mu mën a bind li nga xam ne moom la déggoon xëy na lu mu yàgg-yàgg bu ci yëree dina mën a nafar xam liñ ko jox et que ñun ay technicien lañu et que suñu liggéey mooy développer base bi mooy la cellule fondamentale de base mooy famille bi fi lañ commencé moo taxoon ñu wax monitrice d'économie familiale ba léegi sax maître ñëw maîtresse yaa ngi ci professeur yaa ngi ci mais on s'est rendu compte que ne politique gu gouvernement bi aussi waroon nañu gën a jàppale parce que jàppale bi mooy lan d'abord introduire nañ ko ci école yi ndax jeunesse rek nga war a gën a jëkk a former pour que moom buy dem changement yi muy indi doon lu am importance parce que da ciy màgg xam ndax ñi mag moom dinañ dégg nii rek waaye am na lu ñu xam démb moo leen di xaw a tiyee ba li nga leen di wax mën naa am mu xaw a doy waar a ah, politique gu gouvernement bi nag mooy biñ ko dugalee ci biir njàngale mi kontaan nañ ci d'une part mais bu ñu sañoon itam mu nekk loo xam ne dañ ñuy jàppale ba nga xam ne ni ñu tudde ne Ecofam la ñu tudd matière facultative la ah loolu doon na frein ci li ñuy liggéey ndax bu fekkee ne yaa ngi yore ay matière bu ci nekk nga won ko ne kii kat am na lu muy jariñ lii la moo tax matière bu wóor la coefficient am nangam la maanaan lañ koy natte nangam la ñun suñu bos ñu teg ko ne ne ku bëgg def ku bëggul bàyyi foofa déjà politique bi gouvernement bi def en notre défaveur la et que pour di waxtaan ak ay autorité wax naa leen ne li ñuy jëkk a jëkk a bëgg a def mooy ngeen def ko mooy rendre cette matière obligatoire jox ko coefficient parce que développement bi bu jógee ci base bi jëm ci kaw ci lay jëriñ mais mënoo dem ci kaw rek di wàcce ndax changement ci nit dafa xam dafa don lu metti ndax dafa bari lu baree bari lo xamné ay facteurs lañu yu défavorisant d'un côté mais très peu de facteurs favorisants moy nit ki xamna xeyna xëy la mu xam rek la tamma def kon lool lay continuer et que économie familiale dafa embrasser plusieurs facteurs secteur yi dugg sax bare formation pluridisciplinaire la mooy ci agent jox nañ ko xam-xam ci nu muy économie que ça soit domestique eh, dans son ensemble familial mais nous jox ko ay aussi abita bi mu dëkk nga xam ne mooy environnement am nan la koy defee ba lépp lu fa yëngu doon loo xam ne dafa sell dafa baax te du yàq dara maanaam di fa dugal loo xam ne boo ko fa dugalee mu pasan nit ña wala mu tilim ba dootoo xam wér-gi-yaramu nit ñi fu mu fi yem ah biñ ko defee tam bàyyiwuñu noonu dañ na lekk gerte dafa doon loo xam ne mooy tax nit mën a wér ba mën a tiyee njabootam ba mën a yëngu ci liggéeyam ba mën a dem jàngiwaat leneen pour yokk ay xam-xamam loola doon hygiène nutrition lépp lu ëmb wér-gi-yaram ah biñ ko defeet ñu ne loolu kat doyul agent bi nga xam ne dafa polyvalent nañ ko jàngal itam naka lay war a mën a defe ba mbay mi ci biir kër gi ak ba ca tool ba muy culture de case culture yi nga xam ne moom la ñuy def muy culture vivrière ou industrielle yi ah suñ koy def na dem ci biir wax leen ne kat am na ci yooyu nii moo gën a baax pour ñu defe ko nii mooy jariñ njaboot gi waaye bay baax na déqi baax na jëri baax na waaye garde ba ak denc ci kër gi lu am importance la ndax femme bi moom d'abord ci unité de base bi muy famille bi moom la ñu nekkal gestionnaire et que une fois que formé wuñu ko lu bare dañ koy perte muy ca tool ya ba ba ngay dugg si ci biir kër gi donc yooyu yépp ñu jàngal ko cadre économie familiale booleel ko ci yeneen ak yeneen yoo xam ne nit ki mën na ko yëngu ci biir këram yëngu ko ci biir village am wala ci quartier ba mu egg au niveau national muy lu yokke dinaa leen wax benn expérience bu ma dund dama mas a dem dans la Sagata di waxtaan ci département Kébémer ñuy wax ak groupement yi ma seeti monitrice yi ñuy discuter discuter femmes yeeg jeunes yeeg yi ne ñun de dañoo amul dara moo tax mënuñoo def dara ma ne ah biir kër de bu nit dogoo ne awuma dara moom dina metti mais man fii ñu toog damaa gis ganaar yi dawa ak dikk xanaa ganaar sax am ne kenn ku ne ne am naa. ñu commencé nak ci lolé ñu né dañ ko xeeb ta amuñu dara ci lañ commencé def opération buñ tuddee cocrasseur éliminé ko gloko yi nga xamné du cocrasseur bi ñëwé euh, sujet bu 100% euh, pur la ñu wacc fa ca lolé yépp économie familiale jàngale nako les poules xamal leen nan lañuy xamé ganar gu jigen gu wara mëna nen nen yu baax won leen sélection bi niñ koy defee ñu sélectionné ànd ak ñun éliminer ko ya jaayi ko ñu indi ay gis nga ci boobu opération famille yi dañu dem ba ñi jënd ay bëy buñ jaayee seeni ganaar ñi jënd ay xar dem ba jëndi nag bay defaraat seeni nek. waxuma nag lañ doon def leneen loo xam ne mënuñu ko wax kon loolu économie familiale dafa nek lo xam ne suñ ko bàyyee négliger ko xam la ñàkk xam googu nag ñun lañu ne mooy suñu handicap ndax bu fekkee ne ñun li ñuy liggéey ku jóg ñu woola ci ci amoo vacation bëgg a liggéey looloot day doon leneen ndax ki xamul xamul xam nga man awma liggéey rek naa dem présenter ca concours ba suñ ma jàngalee la may jàng moom bon baax na noonu su ma demee ca école ba bu ñu ne matière facultative ñu ne ah jox leen ñëpp programme jox leen emploi de temps bi man fu ngeen ma fa def baax na ce sont les mots que nous vivons maintenant dans les lycées et collèges xale yi ko ba tudde ñu écofemme ci ñom c'est un terme que j'appelle péjoratif parce que lolu moy yëf yi daal wul dara amul ben maanaa parce que nañ ko présenter la ka dem di def concours ba ah, def na rek parce que amul pexe amul fum dugg def na ko donc amul ben vocation Ñakoy jangal jàngalit xëy na nañ ca waroon a war a mën ca dugg ca ah formation boba ma nga non rek niñ ko gisee lañ ko gisee kon ku ca génne dem ci lycée wala collège bi nga xam mom lañu yaakar pour form pour transformer esprit nit ñi ak seen mentalité pour économie familiale dugg ci xol yi ah, nga dik na élève ba man kat matière bi bala nexé bu examen joté do ko def ay point rek la lay dolil bala nexé neexee sax man nga ko baña def buñu joxe emploi du temps yow en tant que formateur génne école normale supérieure bu ngeen joxe emploi de temps dugal leen ma fu ma mën a dugg parfois c'est des heures yu nga xam ne xale yi jàng nañ ba satire wàcce leen dese kenn bëggatul ci école ba dara ñu di la ña ca des tuuti tuuti ya di nelaw ak a yeewu et ce sont là les mots yu ñuy dund xanaa kontaan ci rek ca sant ci yàlla di wax alhamdulilah ndax ça a par notre lutte mooy xeex bi ñu doon xeex pour jigéen ñu dugg ci école yi. et que inscription des filles et leur maintien maanaam ñu toog ca kalaas ya lutte la woon bu ñu commencé parce que bu ñu commencé jàng a ah, dinañ am lenn luñ ca jële et que njàng moomu bu ñu leen fa bàyyee dinañ dem ba xëy na fa ñu yeggi dëgg la de góor ñi xaw nañ ñoo raw tuuti mais ñoom it dinañ ca def seen loxo ku ci yàlla dugal ba nga avancé di nga dem ba nekk responsable mooy li nga may wax léegi parce que ñun kat bi ñu demee ba gis ay femmes ñuy nekk présidente conseil yu communauté rurale gis ci ay maire comme ni nga wax ay femmes leader nekk ci ay ONG di fa def nag lu yàllaate man bi may dem jóge ci gouvernement du dama bëgg a génn rek dama bëgg a génn dama xam ne il faut que ngay changé pour xam ñana la bëgg ak ñana xam li ngay def ci laa demee ci américain yi ñu recruter mi y avait parmi ñun beaucoup d'hommes et de femmes mais man lañ sélectionné lañ ma doon doyet ma won leen ko ba ñu kontaan ba ne économie familiale daal Sénégal a ko négligé mais lu fondamental la mm-hmm. et que googu ñu nekk fañ fane du ngeen xoolee ñoo ca gën a joxe mm-hmm. ñoo ca gën a joxe ndax jom lañ ca dugge ak yéene ak xam-xam